sëriñ Mor Seck sëriñ Mor Seck mi ngi gane àdduna ci atum 1878 ci dëkk bu ñuy wax Naxëcc Naxëcc mi ci suuf si di Kajoor sëriñ Mor Seck doomu soxna Absatu Fall la kii di sëriñ moor jabu sekk sëriñ moor sekk am na ñu mu bokkal kii di soxna satu faal mi ñu ràññee ci ñaar ñu jigéen ak moom muy ñett ku ñuy wax soxna maam faati sekk ak ku ñuy wax soxna maam mareem sekk ak moom sëriñ moor sekk ñoo bokk seen waajur wa soxna absatu faal mi ak sëriñ moor jabu sekk mi bi matee dal lii di alxuraanul karim dal na ko ci waajuram woow di sëriñ moor jabu sekk mi kii di sëriñ moor sekk yàggul ca njàng ma ndax lu tollu fukki isib rek la jàng ba lii di njàng ma wéyal nag nekk ci ginnaaw waajuroom woowu di ko liggéeyal ba am bis nag mu xalaat ne daal moom war naa wëri lii du lu baax mu wër nag taalu jàng yi ba egg nag ci dëkk bu ñuy wax màkkasaar soriwu dara dëkk boobu di naxa ci wetu kajoor am na ku baax ku fa nekkoon ku ñuy wax sëriñ musaa sëy suñu musaa sëy moomu sëriñ moor sekk mi jaar na fa ab diir waaye daal mujj gi xam na ne li mu soxla ci dem ci suñu boroom wala li soxla ci ngërëm mën a eggale ci suñu boroom du kii di sëriñ Moussa Seye moo ko koy jox mu bàyyi koo fa nag delsiwaat ci dëkk bi mu cosaanoo di xëcc ba ci atum 1902 kii di seexul xaddiim jóge ci réew mi di Gabon delsiwaat ci réew mi di senegal ci atu 1903 nag ci la yéeg ne daal sëriñ Touba seexul xaddiim jóge na ci géej gi ñibbisiwaat na mu ngi ci dëkk bi di Daaru Marnaan ci ngan gum doon amal ak kii di maam Cerno Ibrahima Faati mi rakkam ci la sëriñ Moor Sekk tàggu nag kii di waajuram sëriñ Moor Jabu Sekk mi di ko xamal ne daal dafa bëgg dem ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim jaayanteeg moom ndax daal bari na lu mu soxla ci suñ boroom bari na itam lu mu xemmem ci liggéeyal suñ boroom waaye daal fu mu jaar am góor yàlla gu ko ci eggale ci la xalaate nag Ahmadu Bamb mi ginnaaw ba mu tàggoo waajuróomam wi nag waajuram di sëriñ Moor Jëbu Sekk ànd na ceeg moom ba wax ko ay wax sax jox ko aw fasam fasu jigéen ma wax leen kii di sëriñ Moor Sekk lan moo ko indi ci ëttub baax ki sëriñ Tuubaa dëkk boobu mu cosaanoo di nëxëj am njàngam soriwul ci fukki isib la yem ginnaaw bi nag mu bàyyi ko woon ci dëkk boobu di nëxëj demoon ci dëkk bu ñuy wax màkkasaar ci ku ñuy wax sëriñ Moussa Sëy waaye yëg na ni sëriñ Moussa Sëy mii munu koo jox li nga xam ne moom la soxla bàyyi ko waatoon na fi nag ñëwaat ci dëkkub cosaanam boobu di nëxëj waaye nag lu jiitu muy xam kii di seexul xaddim seexul xaddim ak waajuróomum wii di sëriñ moor bu sekk bokkoon nañ lii di alxuraan ci bi ñuy tuut tànk ñoom ñaar lu bare waxoon nañ ko kóllëre googee ñu bokkoon ndax na sëriñ tubaa seexul xaddim tourné yooyu mu daa def ci kajoor daana ci boole dëkk bii di naxëcc ndax kat am na wóllëreem wu fa nekk di sëriñ moor jëbu sekk sëriñ moor jëbu sekk mi itam daana ñëw ay yoon mbàkke kajoor di nemmeeku ko si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim kóllëre yooyu sàmm nañ ko ba daanañ ko doxante sax daa ko waxante lu baree bari firnde bi rek mooy am na bis ku ñuy wax maam sama sëy moom lañ tudde soxna ab satu faal mi waajuru sëriñ moor sekk rijaal maam assama sëy moomu bis ñëw na ci ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim di ko wax ni dama am benn turandoo bu ñuy wax soxna absatu faal soxna absatu faal moomu de dama bëggoon mu am boroom kër bu baax ci misaal bu ko yërëm te man koo yor ndax kat dañ ma ko tudde jox ma ko loo ma ci laajit ma jox la ko ci lu mel ne li ñu tudde ak weexal seexul xaddiim di tontu maam assama sëy moomu di ko xamal ne loolu nga wax lépp daal soxlawuma ci dara waaye soo eggee yaral ma ko yarub diine lii ñu tudde ay teggin itam fexeel ba mu am ko moom soxna soosu soo noppee nag fobal gor gu mokkal alxuraan te nekkub ab jullit nga joxal ma ko ko loolu ma la wax nag soo ko defee danaa ànd ak barke dugg ci moom kii di soxna Asta Masey moomu mujj na def loolu ko seexul xaddiim santoon ci soxna sii di soxna sa Faal mii ñu ko duppee ba mu matee dem kër mujj na ko jox ku ñuy wax sëriñ moor jëbu sekk mi sëriñ moor jëbu sekk mi ci la am kii di sëriñ moor sekk la waxoon ne man danaa ànd ak barke dugg ci moom loole mu ko waxoon feeñ na ci doom ji nga xam ne nii kii di soxna Absatu Faal am na ko te turandoom wi di soxna Asa Masey mii ñaanaloon na ko ko ci xaadim rasool ak yeneen ak yeneen yu kóllëre yu seexul xaddim seq ak sëriñ moor jë bu sekk mii di waajuru sëriñ moor sekk rijal kon ci kóllëre yooyu ci la nag kii di sëriñ moor sekk rijal ñëw jaayante ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim seede boobu waajuram di sëriñ moor jëbu sekk xamal na ko ko boole ko dénk ko nag soo eggee ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim dana la laaj ba xam man ànd naa ci am ndéet kon nag yeewil sama fas wi te dem te nga kaay ma dénk le lii di ñett benn bi nag mooy boo eggee ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim na nga xool li nga gën a bëgg ci sab xol nga jaayante koog moom ñaareel bi mu koy xamal ne ëtt boobu nga jëm di ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim loo fay sàkku am na fa loolee nga fay wuti nag soo demee nga sàkku ko ci pastéef dana la ko may ñetteel doomam ji di sëriñ moor sekk rijaal ne ko loo gën a bëgg barile boo ko amee jox ko ko ndax njariñ rek moo ciy tukkee doo ko réccu noonu ko waajuram waxee nag boole ko yeewil sama fas wi ngir mu nekk seedeb ne ànd naa ci sa njëbbal gi nga fa séene defi ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim sëñ moor sekk nag fara wareew fasam ci dëkk boobu di naxëcc fa séene nag ci dëkk bii di daaru mar naan fi tollu garage dakaar bi ndax kat booba foofu la xaadim nekk ci ngan gum doon am baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim waajuram walam ko waxoon ca ndénkaan ba mu def loola seexul xaddiim laaj na ko ba xam bi ngay ñëw yëg na la waaw wala déet mu di ko xamal ne fas wi ma war de dama jox la ko lii di àddiye moo ma ko jox ngir di ma wax ne soo eggee su la ko laajee nga ne ko fas wi moo ne ma war ko te jox ko ko lii di àddiya sëriñ tubaa seexul xaddiim loon na ko nag lii di ak njébbalam mu des foofu ci daaru marnaan ginnaaw bi nag seexul xaddiim bàyyi waatoon na ko nag mu dikkaat ci dëkkub boobu dina xëcc waaye mujj dafa nekkoon ci dëkk bu ñuy wax ndogal ndogal googu nag li ëpp ci liggéeyam foofu la ko defee kii di ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ginnaaw bu sëriñ moor sekk rijaal jébbuloo ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci atum 1903 ab diir lañ ci teg sëriñ tubaa seexul xaddiim bàyyi koo fi ñu yóbbu sëriñ tuubaa ci réew mii di gànnaar gànnaar googu sëriñ moor sekk bi sëriñ tubaa seexul xaddiim di fa dem demu fa woon ginnaaw bi nag kii di sëriñ moor sekk rijaal dem na gànnaar bi mu demee gànnaar ziyaara ji ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim tubaa seexul xaddiim nekkee foofu mu nekkoon ci gànnaar ci gàdd giñ ko wàccee woon mu nekk fi moom seexul xaddiim lii di ay giléem dañ fa daa jaar lu baree bari giléem yooyu nag ñaare dañ daa egsi ba fi seexul xaddiim nekk seexul xaddiim bëgg bëggoon lu ñag loola nag ba giléem yi duutuñu mën a egsi fi mu nekkoon seexul xaddim wutloo woon na ko lii di ay banti ron ngir ñu mën a ñag wala ñu mën a sàkket li nga xam ne nii moom mooy foofu seexul xaddim nekk ba giléem yi duñ fa mën a egsi sëriñ Mor Seck delsiwaat na ci réew mi wut ko bim delsiwaatee Sénégal ci dëkk bii di njaasaan la dem ndax jamono joojukat njaasaan rek moo fi am lu takku ci wàllu ron lu mën a ñag foofu seexul xaddim nekkoon ginnaaw bu mu demee ci cheikh bu kunta bu njaasaan ngir di ko sàkku bant yooyu seex bu kunta xamal na ko ni la fa nekk daal ci wàllu ron da ko soxla waaye mën na koo teg tegtal foo xam ne nii daal bu fa demee li mu soxla ci ay ron ngir ko ku baax kooku di xaadim rasul dana ko fa mën a amee ci tool yii di tool yi jëwriñ Maysa Mbay Maysa Mbay nag chef de la woon ci jamono jooju ginnaaw bu sëriñ Mor Seck rijaal demee ci jëwriñ Maysa Mbay nekkoon chef de ngir wut fa lii di ay ron yu mu yóbbu gànnaar ngir mën a ñàkk foofu seexul xaddim nekkoon def na fa ab diir laata muy am lii di ron ya waaye mujj gi nag kii di jëwriñ may sa Mbay jox na ko lu mu soxla ci ay ron yoon boole kook nag sëfal ko ko ba dagana sëriñ moor sekk rijjaal eggale ko gànnaar kon lii itam jaar nafa fa ak seexul xaddiim ci gànnaar ginnaaw gànnaar 1907 ca yéen jolof ca yéen jolof googu itam sëriñ moor sekk rijjaal dem na fa ay yooni yoon ziyaare ji ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ginnaaw ca yéen jolof 1912 njaareem 1912 googu itam sëriñ moor sekk rijjaal dem na fa ay yooni yoon ziyaare ji ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ba ci dëkk boobu di njaareem sax la am bis sëriñ tubaa seexul xaddiim ko fa lu tolloog ay bis li ko dale altine ba àjjuma di ko berndeel ak di ko teral te jataay boobu sax sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim laaj na kii di sëriñ moor Seck Rijaal ndax moom sëriñ moor sekk xam na nu mu tudd sëriñ Mor Seck na tekk Seexul Xaddiim di ko wax ne Ahmadu laa tudd ñaareelu laaj bi mu laajoon sëriñ Mor sekk ca jataay boobu ci la koy xamal ba xam est-ce que moom xam na fan la dëkk sëriñ moor Seck Rijaal na tekk ba tey Seexul Xaddiim di ko xamal ne àjjana ji ñu tudde àjjana firdawsil axlaa foofu la dëkk àjjana jooju nag kudut ngën gi mbindeef muhammad sallallahu taala alayhi wa ak i sahabaam doo fa dëkk ak yeneen ak yeneen wax yu mu wax kii di sëriñ moor sekk rijaal ndax sëriñ moor sekk rijaal nee na am na ci loo xam ne nii yowmal xiyaam kese seexul xaddiim toog mboolu mépp toog la koy wax li ci des nag ba illaa yow mi diini kenn du ko xam ndax du lu ñuy liwaat mook seexul xaddiim kese la sëriñ moor sekk wiy dellu ndogal gi ci kajoor ndax foofu kat la nekkoon bi sëriñ tubaa seexul xaddiim soxla njaareem itim foofu la koy wooloo mu ñëw fa su masaa di seet si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim itim ndogal googu ci kajoor lay jóge xam ngeen ne waa kër sëriñ moor sekk rijaal ñi duñu julli duñu woor ñàkk julli géeg woor googu sax am na bis kii di sëriñ moor sekk rijaal sëriñ tubaa seexul xaddim woolu ko ci njaareem ginnaaw nag gu mag ñi kalaamee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim di ko wax ne moor sekk daal nanguwuta julli nanguwuta woor loolee nag seexul xaddim woolu woon na ci kii di sëriñ sekk di ko xamal ne moor sa baay yi toog de ñëw nañ ci man di ma wax ne moor daal du julli du woor moor sekk demal wuti ak satala akub der di jàpp julli ndax sa baay kat moor jëbu dafa nekkoon ku fonk sariya sëriñ moor sekk rijaal fa séenee wuti nag lii di ab der akub satala ginnaaw bi muy dem nag la ko seexul xaddim wooluwaate jataay ba di ko laaj moor lan moo la tee woon a jàpp julli sëriñ moor sekk di xamal ku baax ki sëriñ tuubaa di ko wax ne li ma gënoon fonk de laa joxoon keroog bi may jébblu si ci misaal muy julli ak woor te man moor de damaa yaakaar ne lu nit jaay te yaakaar a jot ca njëgga duutoo ca am lii di soxla loolu nag moom moo tax nag ma bañ julli bañ a woor sama baay yi toog ku la ci joxoon àddiyeeb junni du wëlbatikuwaat mukk di la ca laajaat lii di aw ñaat téeméer loolu daal moo tax keroog bu ma jébbloo ci yow ak léegi bëggatuma dara soxlaatuma dara man yow rek laa dëgmal keroog bi ma jaayanteeg yow yaa ma ci ker gi nekk sa bind bindkat man nag ca loola laa nekk seexul xaddiim di tontu kii di sëriñ moor sekk rijaal di ko xamal ne moor man ahmadu bamba de jarak ju ma lekk sag weexal de taxaw ci sa jàngora delluwaatal nag ca liggéey ba ci loolu daal ak yeneen yuñ munta wax ci la sëriñ moor sekk rijaal sukk ndikku ba ba ñu julli bañ a woor seexul xaddiim wooluwaat na ko ba baneen jataay ci njaareem mooy ci atum 1926 bi mu koy gërëm lii di ngërëmam ci ngërëm loolu ci la mbàkke sax lii di garaatu rijaal wala ci la tur wi di rijaal gën a siiwe kon sëriñ moor sekk rijaal mi ngi jot ngërëmam bisub alxemis fukki fan ñeent ci weer wi di rajab ci atum 1344 ci gàddaay gi alxemis fukki fan ñeent ci weer wii di rajab ci atum 1344 ci gàddaay gi dëppoo muy jeudi 28 janvier 1926 jeudi 28 janvier 1926 la ko seexul xaddim gërëm ci njaareem di ko wooye nag Mor rijaal kon sëriñ Mor Seck rijaal bi mu jotee ngërëm ak bi sëriñ Tuubaa seexul xaddiim génnee lii di àdduna at la ak juróomi weer ak ñaar fukki fan ak ñett ndax 28 janvier 1926 ba le 19 juillet 1927 at la juróomi weer ak ñaar fukki fan ak ñett seexul xaddiim génn àdduna sëriñ Mor Seck nag waaru jaaxle waaye ginnaaw bi nag fob na léppam rek jox taawub seexul xaddiim ba di cheikh mamadul Moustapha Mbàkke lii di waa kër sëriñ Mor Seck ñi ngi amal lii ñu tudde tudde am tëgg tëgg moomu nag yaatu na lool wala am na cosaan ci lii di kër googu ndax sëriñ moor Seck daana ko defal ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddiim ci nekkinam ginnaaw bu fi seexul xaddiim jógee itam kii di cheikh Mamadou Moustapha Mbacke sëriñ Mor Seck daana tëgg ci nekkinam ba ci doomu cheikh Mamadou Moustapha Mbacke bii di sëriñ cheikh Mbacke gaynde Fatma ginnaaw sëriñ cheikh Mbacke gaynde Fatma itam kii di sëriñ Mbacke soxna loo ak njabootug sëriñ Mor Seck daanañ tëgg ci nekkinam ba ci jamono ji ndax fi la ko seexul xaddiim bàyyi lii di tëgg mi itam dafa am ay sart wala lii di ay norme ci gaajo dong nag la yam su ëppee gaajo nag njaboot gi xaabaabal nañ kii di sëriñ moor Seck Rijaal ci atu 1927 laata sëriñ Tuubaa seexul xaddiim di génn lii di àdduna ci weeram yu mujj yi wala fanam yu mujj seexul xaddiim ci kaw jamono bindoon nab lettre kii di sëriñ moor Seck Rijaal di ko laaj àddiyey dugub ceeb ak lii di diwlin seexul xaddiim ma ngay wax sëriñ nekk ca lettre ba di ko xamal ne soxla na addiya yooyu mu ko limal balaa ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weer wi di weeru tamxarit ci at mi di 1346 ci gàddaay gi seexul xaddim ma ngay xamal sëriñ moor Seck ca lettre ba di ko wax ne bu fekkee ne indi na addiya yi te fekk ko fi na ko jox kii di seex dul Moustapha Mbàkke moomam addiya yooyu bi ko sëriñ moor Seck rijjaal di ko indil seexul xaddim ca njaareem la tombeek ñi doon indi seexul xaddim ci Tuubaa guñu njaareem addiya yooyu ci loxoy cheikh mamadul moustapha mbàkke la ko teg addiya yooyu moom lañu waajale lii di sëriñ bi ginnaaw ak jógeem lii di àdduna ci atu 1927 addiya yooyu lettre bi ko seexul xaddim bindoon di ko wax ni soo ma indilee addiyey ceeb bi dugub ji ak lii di diwlin ji te fekkoo ma fi jox ko cheikh dul moustapha mbàkke ba mu koy indi fekk na ñu yóbbu woon seexul xaddim tuubaa ñëwaataguñ addiya yooyu lañ taxawoo ginnaawuk sëriñ bi lettre bi seexul xaddim sëriñ Mor Seck moo nekk nii ñu teewlu ko bismillahi rahmaani rahim amar cheikhul akbar wal qadimul abar muriduhu sadiq wa sahaabihi sadiq cheikh Mouhamed Seck al mustahir bi rijal wa ismuhu dalla ala annahu wahidun jama awdiyatul awamiri حال أمره أمره بملازمة الإهداء إلى جنابه عدة الثمانية وعشرين بلاسا مصحا مملوءا بأرز ثمانية وعشرين إناء مملوءا بثمن طيب أو دهن أمره بذلك عصية يوم الأحد السابع عشر من محرم عام wamsatin tamma baa ngi noonu lettre boobu nag mooy dëggal ne ginnaaw bu seexul xaddim bàyyi ko liñ ko taxawoo sëriñ Mor Seck Rijaal mooy ki ko indi ndax xaadim rasuul moo ko ko sant sëriñ Mor Seck Rijaal ginnaaw bu mu noppee gis xaadim rasuul jël na léppam nag jox ko kii di taawu xaadim rasuul bi di cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke di ko liggéeyal def ko xaadim rasuul lépp lu cheikh Moustapha Mbàkke soxla su ko yëgee def ca lam am lu man mën ak lu mu mënul moo xam gasum raay bi la lii di tojum carrière ba ba ci liggéeyub jumaa ji ndax bi Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke taxawoo lii di jumaa ji ci le 4 mars 1932 wéy na nag di sanc ay dëkk ngir kat la fay tukke ci wàllu ñorteef man di dundal lii di jumaa ji ndax ñu mën a eggale ndigalul xaadim rasool li ca noona nag ci la sanc dëkk bu sell bi di Taïf ci atum 1939 Cheikh Modou Moustapha Mbacke jëloon na yenn ci mag ñi toppoon ci ginnaawam di ko xoole xaadim rasul ngir nag ñu sañc lii di ay dëkk yu wër taayif ñoom itam lu fay tukkee ci wàllu ñorteef ñu man koo def ci jumaay Tuubaa ji kon kii di sëriñ Mor Seck Rijaal ca mag ñooña la bokkoon moom itam sanc na ab dëkk ci ginnaaw taayif dëkk bi moo tudd Gerle Seck ci atum 1940 ngir ndigalul Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke loolu nekk na foofu itam di bay lu fa ñoree Mbàkke mu def ci jumaa ji ginnaaw gerle sekk googu sëriñ Mor Sekk Rijal wéy na nag di sanc ab dëkk wala di sanc lii di ay dëkk sanc na ci ndigalul xaadim rasuul dëkk bu ñuy wax daaru sekk daaru sekk gi ci wetu cil maxa sancaat na baneen dëkk ci ndigalul cheikh mamadul moustapha mbàkke ci atum 1928 mu tolloog fii ilipoor bi nekk ñu koy wax kër rijal sekk sanc na ñetteelu dëkkam ci ndigalul cheikh mamadul moustapha mbàkke di gerle sekk ci atum 1940 kon ñetti dëkk yi gi la kii di cheikh moor sekk rijaal sañ ci nekkinam mu nekk fay liggéey lum am yiti muy xoole xaadim rasul di cheikh mamadul moustapha mbàkke mu def ko ci jumaay xaadim rasul ji sëriñ moor sekk rijaal am na ay góor yàlla yu mu defar ba ñuy defaree ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ moussa sekk sëriñ abdoulaye jeng bu mbàkke bawal sëriñ daam sekk sëriñ maxet bajaan sëriñ mbàkke sekk sëriñ basiiru sekk ak ñeneen ak ñeneen ñu takku ci mbooloo moo xam ne ni kii di sëriñ moor Mor Seck Rijaal seexal na leen ba ñoom it ñuy seexalaate kii di sëriñ Mor Seck Rijaal bi seex mu Moodu Moustapha Mbàkke toogee lii di xalifa am na bis moo ku ñuy wax sëriñ Moodu Lo Mbere ñëw nañ ziyaari si ku baax ki seex Mamadul Moustapha Mbàkke bi ñu demee la seex Moodu Moustapha wax ne Moodu loo Mbere mii de ak Mor Seck Rijaal mi képp ku ñu sukkal sam xel war naa dal mag ña fa ne woon di tontu seex Moodu Moustapha di ko xamal ne Mbàkke Balla yow koy ñépp la war sukkal mu aadama ak awa ñoom fekke nañ ko te fii ba bi penc di taxawitim danañ ko fekke boobaak léegi lu leen fi ump amul lii itam cheikh Modou Moustapha jaar na ci kii di sëriñ Mor Seck Rijal ci la sax ba noppee gis kii di cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ci atum 1945 mu jël léppam nag jox taawu cheikh Mamadou Moustapha ba di sëriñ cheikh Mbacke Gaynde Fatma di ko xoole cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ak kii di xaadim Rasoul ba ci atum 1950 sëriñ Mor Seck génn àdduna ci feebar bu ko tëral dugal ci dëkkub Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke boobu di Taïf Mbacke ñu jël ko indi ko ci armeer yu mag yi di Touba ci ndigalul sëriñam ba sëriñ Cheikh Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke sëriñ Mor Seck Rijal ko amoon relation la ak mag ñi toppoon sëriñ Touba Seexul Xaddim rawatina ñum nekk loon ci xalifatu cheikh mamadul mustapha mbàkke ginnaaw seexub seexul xaddim bii di sëriñ masàmba jóob saam nekk sax lii di nijaayam amoon naa ak bu takku ba lii di doom sax duppe na ko ko ginnaaw sëriñ masàmba jóob saam amoon na relation ak kii di cheikh madiba silla ndax ñoom ñaar seen dëkk yiñ sancoon ci ndigul cheikh mamadul mustapha mbàkke sorentewul ndax sans dotu ak gerle sekk ba sëriñ moor sekk rijaal sax daana wax ne bis bu ko yàlla joxoon mbooloo mi topp ci ginnaaw sëriñ madiba silla moom daal day firi sax lii di am réew ndax kat sëriñ Madiba Silla da koo yéem ndax sëriñ Madiba Silla ni mu nee tekk ak mbooloo mi ko suñ boroom booleel ni ñu ak moom itam ni mu yëngutoo ak mbooloo mi ko suñ boroom booleel ni mu tekk de bu suñ boroom soppi woon ñaari mbooloo yi moom daal day taalum réew wala mu firi lii dim réew relation moom amoon nañ ko kii di sëriñ Abdoulaye Diané nekkoon seexub seexub Xaddiim moom itam amoon nañu réew di relation kii di sëriñ Modou Lo dere du ndaamtaay fitim amoon naag moom lii di relation ba kii di cheikh mamadul mustapha mbàkke ñoom ñaar boole woon leen lii di ay wax kii di sëriñ moor sekk rijal wëllërew sëriñ bàlla faali jëng la woon ndax kat kii di sëriñ bàlla faali jëng faboon na kenn ci ay mbokkam joxoon ko sëriñ moor sekk rijal ngir mu denc ko comme soxna sëriñ moor sekk rijal itam jëloon na doomam wala doomu sëriñ bàlla faali bii di sëriñ muudu jëng mi toog xalifab sëriñ rijaal kon kóllëre moom mag ñooñu amoon nañ ko ak ñeneen ak ñeneen ñu takku ci mbooloo mi toppoon xaadim rasul nekk ay cheikh ndax sëriñ moor sekk rijaal rijaal la sëriñ moor sekk rijaal mi ngi génn àdduna bisub gaawu ñaar fukki fan ak ñett ci weer wii di weeru tabaski ci atum 1369 ci gàddaay gi gaawu ñaar fukki fan ñett ci weer wii di weeru tabaski ci atum 1369 ci gàddaay gi dëppoo muy samedi octobre 1950 samedi 7 octobre 1950 ci dëkk bu sell boobu di taayif ci feebar bu ko tëral ci kër sëriñ Moodu Kan ci taayif booy dugg ci kër gi ci sa loxo càmmooñ fi mu génnee àdduna ma nga foofu ci taayif sëriñ Cheikh Mbàkke mi nekkoon sëriñam mi mu doon xoole xaadim rasul ak kii di Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke sàkku ñu indil ko ko ci dëkk bu sell bii di Tuubaa ñu denc ko ci armeer yu mag yi sëriñ Mor Seck Rijal ay xalifaam nag nii la tëdde ci atum 1950 ba ci atum 1965 doomam ji ñuy wax sëriñ cheikh faatim sekk rijal mooy ki ko wuutu ñaareelu xalifa sëriñ moor sekk rijal ci atum 1965 la ba ci atum 1992 ku koy wax sëriñ hamdi sekk rijal ñetteelu xalifa sëriñ moor sekk rijal ci atum 1992 la ba ci at at mi di 2000 di këmu tudde woon sëriñ Masamba Jóob Saam ñu koy wax sëriñ Masamba Sekk Rijaal li ko dalee 2000 ba nëgëni nag ñeenteelu xalifa sëriñ Moor Sekk Rijaal mooy ku ñuy wax sëriñ Cheikh Fental Sekk Rijaal moo fi nekk di ñeenteelu xalifa sëriñ Moor Sekk Rijaal ñu ngi koy ñaanal suñu boroom guddal aw fanam te wéral aw cëram te yàggal ko ci toogaayu waajuram wow wow di sëriñ Moor Sekk Rijaal darajey Rijaal ja waajuram takkoon yàlla na ko takk bokk ci darajay xaadim rasuul ak mbooleem sëtti sëriñ moor sekk rijaal yi ak taalibe yi ak soppe sëriñ moor sekk rijaal yi sëriñ moor sekk rijaal am na nag bis bu ñu koy fàttaliku wala am na bis buñ ko daa fàttaliku muy ñaar fukki fan ñett ci weer wii di weeru tabaski di bis bi mu génnee lii di àdduna ci taayif bis boobu ak njabootam daa nañ ko ci fàttaliku maanaam ci li ñu tudde lii di ak màggal ñaareelu xalifaam bii di sëriñ Amdi Sekk Rijaal ci atum 1965 bi mu toogee xalifa wala bi mu toogee ñaareelu xalifa sëriñ Mor Seck Rijaal ngir wutal waajuramam wi bis bis boobu sax di ñaar fukki fan ak ñett ci weer wii di weeru tabaski bi ñeenteelu xalifaam bi ñëwee di sëriñ Cheikh Fental sekk liñ ko mujj soppi boole kook màggal gi sëriñ Mor Seck Rijaal jote lii di ngërëm muy le 28 janvier yóbbu ko ci dëkk boobu di Daaru sekk waaye màggal gi ba nëgëni ñu koy amal fiñ ko daa amale di gerle Seck léegi nag lii di màggal gi lañu bàyyi di ci wàcc rek lii di ay kaamil ngir dundalaat bis ba wala ngir fàttaliku bis bi seen waajur wi génnee àdduna màggal googu doxal nañ ko ba ci at mii di l'an 2000 la ñeenteelu xalifam bii nag di sëriñ cheikh fental sekk jël bis bii nag di ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weer wii di weeru janvier di bis bi seen waajur wa sëriñ moor sekk rijjaal jote ngërëm ci ku baax ka xaadim rasuul ñu di ko ci fàttaliku ci dëkk bi njëkk a ci ndigalul Rasoul di Daaru Sekk foofa la ñuy amalee seen bisub waajur wi di bis bi sëriñ Mor Seck Rijal jote lii di ngërëm ci kim doon liggéeyal di sëriñ Tuuba Seexul Xaddiim ci njaareem ñu koy amale ci dëkkam boobu mu sanc di Daaru Seck bis boobu sax di ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weer wi di weeru janvier sëriñ ba Silla nekkoon wëlle réew kii di sëriñ moor Seck Rijal moo waxoon ñaareelu xalifa sëriñ Mor Seck Rijal di sëriñ Amdi Seck Rijal di leen xamal ne màggal bisub dem bi de am na solo lool waaye bis bi mu jote ngërëm di buñ ko ci boolee itim dana baax sëriñ Amdi sekk mi nekkoon ñaareelu xalifa sëriñ Mor Seck daana ko màggal ci nekkinam waaye ñeenteelu xalifaam bii di sëriñ Cheikh Fental Seck mooy ki ko yaatal ba mu toll fii mu tollu jamono ji ñi ñaan ci liggéeykatub Seexul Xaddiim ga ka takkoon garaat bii di rijaalullaahi ki jël doomam yépp tudde Seexul Xaddiim doomu soxna Absatu Faal ba ak kii di sëriñ moor Jëmmu Seck ba ñu gënoon koo xam yàlla na ñu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem bi jeeyi xaadim rasool moom doon liggéeyal te suñ boroom teg loxo njaboot gim fi bàyyi moo xam doom la sët la ak lii di taalibe jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ boroom saafara ci kàttanam ak dooleem ci darajay grade